jërë ngeen jëf mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi nga xam ne yéen a safoo taamu li nga xam ne mooy GCB njëkk mën nga abonné euh, ngir nga mën di am bépp vidéo boo xam ne mooy bàyyi ko fii ci GCB dige bor la ñàkk koo def war la ñoo leen digoon waxtaanu Cheikh Ahmed Tidiane ndaw ci siiratu nabawiya ci histoire yonent yàlla Moussa indiloon nañ leen ñaari épisode ci bi muy bëgg a xar géej gi ak bés bi ñuy xar géej gi ba firaw na ñëw taxaw ci tefes gi bëgg a fekk ji euh, Moussa ak aw ñoñam fa la ñu toll woon tey nag daañu leen indil lépp incha allah maanaam commencement lay doon ndax épisode la par épisode épisode par épisode euh, yàlla dogal na ni waxtaanu si Ahmed Tidiane Ndao euh, fi nga xam ni moom mooy yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu salaam ba ci ak aadama ak awa histoire bi lépp yor nañu ko ci kàttanu borom bi mais dinañu indil histoire yonent yàlla Moussa fi mu commencé fi mu jaar nekk liir fi ko way juróom di yóbboo ca pale ba fi mu ko tegee ci ndox mi ba muy dem ca pale ba lépp bu ànd ak dogalu yàlla daañu leen ko defal épisode par épisode indi leen ko tey nag daañu ñëw ci épisode bi njëkk incha allah muy fan la yonent yàlla muusa commencé ci ay jafe-jafe. ba moo dugg ci biir palais ba loolu lépp daal leen ko indil xam naa njëkk li ci des mooy am na mbokk yoo xam ne ñu ngi may wax ni ma soaay bu bëgg nañ ko indilaat ñu li nga xam ne mooy euh, dialogue yi nga xam ne moom la ñu euh, tàmmoon ak yéen ah, mooy li ngeen daan dégg ci dialogue yeeg mag ñi te mu commencé woon fële ca Tiwaawan ndax yëf yi moom ñu fàttali ne itam Soaybu euh, nitu thématique la de loolu xëy na yàllaa ci dugal barke rek ñu defoon ci benn audio ca maam Abdoul Aziz Sy Dabakh ba muy wax naan Euh, ana Lamine Gueye ñu naan ko Lamine a ngi nii boo la yëf yi commencé ñu def ci benn audio rek yàlla barkeel ko ca lañ commencé li nga xam ne moom mooy mbir yi foofu la yëf yi commencé mais ku xam Sohaybu bu xam ko ci actualité xam ko ci ay thème actualité xam ko ci bare bare baree baree bare euh, waaye nag loola daf ñoo dab dinañ ko indiwaat nag ci kàttanu borom bi dinañ ko indiwaat euh, ñi ngi nuyu bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo nekk foofu Youssou maa ngi koy ziar kenn ci kilifa yi nekk foofu la ca Tivaouane saa yi ma Euh, kilifa yi nee nañ booy waxati sëriñ Abdoul Aziz Sy Dabakh deel wax maam Abdoul Aziz waaw ñu ngi koy ñaanal bu baax ndax suñu mbir fa la commencé ci euh, mbiru dialogue yi yàlla def ci barke muy sëriñ Abdoul Aziz Sy Dabakh régulateur société bi. ayca mbokk yi kon tey dañuy commencé li nga xam ne moom mooy fan la Moussa commencé woon ñu ànd ceeg euh, Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw di fàttali itamit ni sëriñ Abdoul Aziz ñu ngi koy ñaanal bu baax ndax ma ngay wàcc dem ziar ji Seydina Cheikh. Euh, ànd ak woy waajuram yàlla na ko yàlla teg ci yoonu jàmm waaw ñu ngi lay ziar baax jaww di wax ni yàlla na nga dem ci jàmm ñëw ci jàmm yéen ñi ko doon jéem a jotit mu jafe xam naa ni euh, lu passé altine bu ngeen ko jotee ba altine bi dellu si waat su xawee jafe rek na ngeen jàpp ni dafa dem foofu la ca na Cheikh dem ziara ji ko ndax ñaari saa yu toogee ab diir dana dem ziara ji ko incha allah ñu ngi koy gën euh, tàllalaat loxo yi di wax ne ay numéro mi ngi noonu di avisé numéro yooyu ngeen di gis mooy ay numéro Serigne mooy suñu sponsor leader bi nga xam ne lu tolloog ñeenti at wala ñetti at ñu ngi ko ànd ci liggéey jërëjëf sëriñ Abdoul Aziz Diaw yàlla na nga dem ci jàmm euh, ñëw ci jàmm. ayca kon ñu dem directement rek sëriñ euh, ak euh, Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw ñu àggaleel ñu histoire wala boog ñu commencé histoire yonent yàlla Moussa. moom Xasqiil bi mu répété baat yi ba wóoluwaat boppam mu daal di dellu siwaat bi mu dellusee ba toog. dem bay waxaat yàlla rocciwaat kalaama ci moom amatul ak wax lu dul ak muumaa nekk ci moom ak lu mu commencé liyaar ñu jàppaat ko caw ko ba muy bëgg a dee mu delluwaat ba mu delluwaatee nag ba ca yoon wa yàlla delluwaat ko ak wax ci la xamee nag ne liir bi du liiru como du liir bu ñuy feeñal ci la toogee nag jàpp ñàmburam e eh, yàlla dogal nag bi ndaw si dellusee di seet ba xam ndax keesam pare na wala dédd fekk na ay soldaar ñu ngi ci biir kër xasqiil di ko laaj lu tax mu defar kees gii waaw ñu ne ko xasqiil lima sanacta hada taabuut wa liman najaar mu ne sanactuhu li nafsi wa li ahli sawnan li tharwati wa tharwatihim ñu ne ko amithluhu laa yubaacu li axadin in talabahu mink fa qaala laa xasqiil bi nga xamante ni yaayu Moussa dellusi na pour jël si kees gi lu jiitu muy dugg ci kër gi fekk na fa ay soldaar yoo xamante ni ñu ngi këréel xasqiil ci kees gi nga xamante ni liggéey na ko di ko laaj lu tax mu liggéey ko ñu ne ko lu tax nga liggéey kees gi yow ménager bi mu ne ko dama ko liggéey pour sama bopp liggéey ko itam pour sama famille pour mën cee denc seeni koom-koom ak sama koom-koom man ñu ne ko ndax kees yu mel nii doo ko faral di liggéey di ko jaay bu fekkee nit soxla na ko ci yow mu ne déedéet man yii dama koy liggéey rek pour sama bopp di ko jariñoo waaye liggéeyaluma ko kenn e yàlla dogal nag bi nga xamante ni soldaar yi dem nañu yoon ci yàlla muusa yaay ji daal di dugg si bi mu dugg see nag Xasqiil daal di jël kees gi jox ko yaayu Moussa Eh, li tax nag ba léegi tudduñu turu yaayu muusa lu dul dañ naan rek yaayu Moussa tur wi dañu ne eh, ñi ko xam bariwul ndax tur la boo xamante ni xam ko dafa bëri njariñ lool te itam ku ko xam ñaare sa affaire dana baax lool ndax secret bi nga xamante ni mu ngi ci biir tur wi eh, nit ñi nag ñu ngi koy gëstu pour jéem ko xam ñàkkul ne am na ñenn ñu ko xam. waaye daal ku ko xam moom e daneen la joxoñ ak ay baaraam ndax ku yàlla baaxe ngay nekk loo tax tuuram nekkul lu ñuy exposé ci téere yi lu dul ne nag bari na sax ñu ci wax e, ñii ne nii la tudd ñii ne naa la tudd waaye daal liñ ci mën a wax daal tuur la boo xamante ni daal xam-xam e, xam-xam la boo xamante ni kenn du ko bind ci téere xëy na dañ koy déyoonte kay yaay Muusa bi mu jëlee kees gi def na li ko boroomam santoon te moo di nàmpal na yonent yàlla Muusa ba mu màndi mu daldi koy dugal ci kees gi daldi woo rakkam doomam jooju ñuy wax uh, Maryam di mag ci yonent yàlla Muusa mu woo ko bu mu ñëw mu ne ko nag sama doom ji dañ ma digal ne naa ko nàmpal dugal ko ci kees gi sànni ko ci géej gi foofu nag xale bi e cofeelu mag ci rakk daal di yëngu ci xolam mu wax ak yaay ji ne ko umma wa kayfa yatibu qalbuki wa anti tarmi waladaki sagiri fi nniil wa tayyaaru yandaficu ila xaytu la nacrif awa yakunu akila al asmaak qaalat laa yaa binti siwa annani kuntu aclamu an allaha arxamu bihi minni wa annahu yuxibuhu akthara mimma uxibuhu ana mu ne ko itbaci ithrahu Mariam daa di wax yaay ji ne ko sama yaay naka la sa xol mën a teeyee ngay jël sa doom di ko sànni sa doom ju ndaw ji nga jël ko di ko sànni ci dex gi te vague yi ñu ngi jañu di dem fu kenn xamul te vagg yi dinañ ko yóbbu foo xamante ni doo ko gis duma ko gis wala sax mu mujj nekk ñamu jën yi yaay xanaa sa xel àndulook moom xanaa sa xol dawul yaay ji ne ko déedéet yow sama doom def naa ko ngir xam ne yàlla mi ma ko sant moo ma ëpp yërmande ci moom te itam sama cofeel ci moom lu tuuti la soo ko dendaleek cofeelu yàlla ci moom ne ko yàlla mu ko gën a bëgg fuuf mu ne kon nag li ma lay sant mooy toppal ma rekk ci gannaaw kees gi di ma ko surveiller loo xam ci moom rekk nga ñëw wax ma ma daal sama boroom sant na ma waaye danaa def nga xam ne kon li ñuy wax naan ndigal ak ndugal bokkul ndigal sa njariñ la ndugal nag dañ lay dugal mu mel ni yonent yàlla Muusa yaayam yàlla daf ko digal mu jëfe ndigal la moo tax itam la yàlla chartonte woon ak moom fokk mu matal ko kon mu mel ni bu la yàlla digalee lu mu tiis tiis tiis defar rek ndax njariñ rek moo ciy juddu léegi bi mu ko sànnee Mariam topp na kees gi di ko xool di surveiller et vague yi di yóbbu di yóbbu kees gi di yóbbu kees gi et ndeke dex gi mu ngi ci buntu pale Firawna mu di dexu niil xam nga léegi sax nit ñi boo dee xool léegi ku la ëpp alal rek la muy bëgg mooy jéem a dëkk ci wetu ndox dëkk ci wetu tefes yi parce que fa ngay amee air pur fa la itam sa yaram di gën a naye fa lay gën a dunde firaaw na amoon na loolu ndax firaaw na ko xamoon dundin la ak na muy dunde firaaw na yàlla jayoon na ko ba lépp lu jëm ci wàllu dund daf ko xam-xam bu wér ci luy waral yaramam dund ci luy waral itam ay tabax yu rafet waaw yépp yàlla xam-xam boobu yàlla daf ko joxoon pour lan pour rek mu gën a mën a dëjjërlu ci àdduna gën a mën a xemem àdduna mu mel ni dex googu nga xamante ni moo ñëw ba ci buntu pale Firawna ndekke amoon na ay jaam yu jigéen yoo xamante ni eh, jaam lanu ci soxna Firawna mu di Asiya asiye moomu nag e bi nga xamante ni xale yu jigéen ñi ñu ngi sang ci dex gi la ñu jékki-jékki rek gis benn kees kees gi nag ñu ngi koy séen daal mu ngi sës ci benn garab ci wetu garab gi nag am na ay ñax waaw kees gi daal fa la costé xale yi nag yaakaar ne xëy na ay or ay takkaay ñoo nekk ci biir kees gi ñu njëkkante kees gi daal di dem for ko biñ ko foree nag daal ñëw fekk Asiya fi mu toog ci pale bi ñu ñëw ne ko yaa Asiya hada sunduqun qad alqa bihi niilu ilayna wa naxnu la naarifu maada huwa fi daaxilihi Asiya daal di koy xool ne sunduq laala alxilya fi daaxilihi sheyun maknun ñu ne ko acier lii de ak kees la goo xamante ni dex gi moo ñu ko jox ñu ngi ko fore ci biir dex gi waaye nag xamuñu lan moo nekk ci biir ndax jotuñu ko ubbi acier daal di kees gi na xëy na boog ay takkaay ci nekk ay or ak yooyu daal woo nag ay soldaar kon comme xamaguñu lan moo war a nekk ci biir ñu woo nag ay soldaar lu am doole te am kattan ñeme pour ñu ubbi ko ndax bu fa safaan nekkee itam ñu mën ko rey ndax kees yooyu mën nañ ci def luy gaañe yu ñëwee ñoom ñëpp ñu armé wu pour ubbi kees gi fekk kees gi boobu benn liir a ci nekk waaye xamuñu lan moo ci nekk bi ñu dajjee kees gi bu ubbi ko ñoom ñëpp ñu ngi armé wu nga xam ne bu doon ne safaana ci nekk rek balaa génn kees gi ci biir kees gi leen koy rey ndax soldaar yu takku te itam yu ñàkk caaxaan te sàgganuñu ñoo doon ubbi kees gi bi ñu ubbee rek mu di liir te ñoom ñépp liir bu góor rek leen doon wut pour rey ko xanaa kon reye ci gënoon a jekk yàlla nag foofu wax na yonent yàlla Moussa ne ko ma sànni bayre ci sa kanam ba ku la gis sopp la looloo tax kenn reyu la nekkoon ci biir kees gi leen lay reye wa alqaytu alayka mahabbatan minni cofeel boobu nga xamante ni yàlla sànni na ko ci kanamu yonent yàlla Moussa ba ku ko ji sopp ko dañ ko ubbi rek Asiya sopp ko waaye lu njëkk Asiya di ko jël ndeke amoon na benn doomu Firawna bu jigéen boo xamante ni dafa yoroon feebaru ràmm moom moo ko njëkk fab ba mu ko fabee nag yuut yi nga xamante ni moo doon génn ci gémmiñu yonent yàlla Moussa taq ci loxo doom bu jigéen boobu nga xam ne firaaw naa ko jur waaye fu yuut yi taq rek ci feebaru ràmmam bi foofu day wér mu daal di jël nag yuut yi di ko raay ci loxo bi fu mu raay rek mu wér ah ñu xam ne kat xale bi xale bu am bayre la te xale la itam bu am barke ndax dugg ci kër rek commencé wéral feebar boo xamante ni médecin yëpp tële woon nañ ko kooku itam wax dëgg yàlla barke la gu yàlla def ci xale bi Asiya daal di jël xale bi nag téye ko fekk boobu na mu ngi génn ñëwul bi na ñëwee Asiya ne ko man de am naa benn xabaar daal dafa am lu mu la bëggoon a bégale mu ne ko loolu lan la mu ne ko daal dama fi am daal lu saf xorom loo xamante ni xam naa boo ko gisee da nga kontaan mu ne ko loolu lan la mu ne ko tiflun jamilun malih mu ne ko xale bu rafet te am bayrete saf xorom firaaw na xool ko daal di ne ko xaleel parce que boobu firaaw na xale bu góor rekk yóbbu fitam mu ne ko xaleel foofu nag lë seytaane bu mag bi daal di jógee mu di Haamaan Haamaan moom ci la jóg ne ko yow Firawna na nga def très attention man dama ragal ne xale bii moo doon xale biñ doon wut pour rey ko ndax xale bi daal ni mu duggee fii jaaxal na ma boo ko reyul daal mën na laa indili ay problème waaye comme jigéen moom bu fekkee jëkkëram daf ko bëgg mu nekk seytaaneem muy ëpp doole ci moom keneen waaye li Haamaan wax moom seetlu la boo xamante ni wax dëgg yàlla boo ko dee gëstu dëgg la ba mu jeex xale boobu mooy xale bi war a folli Firawna waaye boobu pouvoir bi yàlla jox na ko Asiya e xam nga dañu wax ne mag ñi dañ koy wax dañ ne dañ koy lépp dañ ne dafa am benn xale bu toog ak juróom ñuy waxtaan mu jékki-jékki rek benn waxambaane bu rëy daldi romb ci digg ëtt bi rek xale bi daal di ne waaw bàyyi xanaa waxambaane bi moom moo mën ci àdduna bi baay bi ne ko ah déedéet waxambaane bi kay mënul ci àdduna bi am na lu ko mën mu ne ko lan moo ko mën mu ne ko jongama jum na ba ko mën fu mu ko fekk rek diri ko yóbbu mu ne ko waaw xanaa jongama moom moo mën ci àdduna bi jongama ju rafet mu ne ko déedéet jongama ju rafet doom e doomu ko mën ndax boo amee doom bu doom jo jooyee rek mu taxalikook sagom bu ko fekkee muy nelaw dana dagg nelaw yi su ko fekkul muy liggéey dana bàyyi liggéey ba toppatoo doomam ba mu noppi xale bi ne ko waaw bàyyi xanaa kon doom moo mën ci àdduna bi mu ne ko déedéet doom am na lu ko mën mu ne lan moo ko mën mu ne ko jooy waaw xale moom e, nelaw mu ne ko xale moom sunu lu muy lu mu wex wex wex su ko nelaw roofoo rek mu daal di tëdd kenn mënu ci dara mu ne ko waaw xanaa nelaw kon moom moom mën ci àdduna bi mu ne ko déedéet nelaw am na lu ko mën mu ne ko lan moo mën nelaw mu ne ko aajo ju të faju su amee problème te problème ba fajuwul doon nelaw mu ne ko waaw xanaa problème bu të faju mu mën ci àdduna bi waaw ah, xam naa ne xale bi mën naa laaj de bàyyi bi ne ko déedéet problème bu të faju e, mënul ci àdduna bi mu ne ko lan moo ko mën mu ne ko mbokk yu déggoo te yërëmante te soppante fu ñu fekk aajo ju të faju bu ñu takkoo rek aajo ba faju waaye liñ ci soxla moo di la ko doom ji njëkk laaj ca waxambaane ba ne ko ndax waxambaane mën ci àdduna bi mu ne ko déedéet jongamaa ko mën waaye firawna lam doon am am kattan lam doon am am doole asiya ku mën ndax mooy jongama ji nga xamante ni e wax dëgg yàlla e li ñuy wax naan mooy kaani xeeñam taxoon na daal e xamoon na ne itam ñaawoon na njort ci Muusa waaye nag faiblesse ci asiya tax na reyul Muusa ak itam namm namm yàlla ak dogalam mu ne asiya asiyene ko firawun bu ko rey mu ne ko bu ko rey mu wax ko alquran nettali ko wa qaalat imraatu firawun qurratu aynin lii walak laa taqtuluuhu asa an yanfaana aw nattaxisahu waladan mu ne ko firawun kii mën naa nekk sama seddu bët nekk sa seddu bët ndax sëy nañ lu yàgg te amuñu doom mu ne kon bu leen ko rey e te itam bu ñu ko gardee ëllëg mën na am mu jariñ ñu ñu jàppe ko muy suñu doom comme yàlla dénkuñu doom ndeke itam asiya baax na baaxaay goo xamante ni kàccoor bu mel ni na warul nekk jëkkëram ndax wax nañ ne sax e asiya mi ëllëg àjjana moom mooy nekk soxna yonent bi sallallahu alayhi wa ëllëg ci soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soxna yi yonent bi war a am àjjana ëllëg ci la Asiya di bokk te Asiya moo doon sëy ak Firawun waaye wax nañ ne Firawna waxtu masaana soxla Asiya pour sëy ak moom yàlla da daan doxale mbaam ci diggante bi Firawna sëy ak mbaam mi ba ajoom faju malaaka yi rocciwaat mbaam mi waaye masta jote Asiya li ñu sëy li li diiru li mu ànd ak moom yëpp lu tax ndax firaw na kàccoor na kàccoor goo xamante ni lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom firaw na waru ko laal waru te joteeg moom ci dara kon am loolu mooy sababu Asiya bañ a am doom ak firawn moo tax bi Muusaa ñëwee mu ne ko nanu ko bàyyee mu nekk suñu doom nekk suñu seddu bët ah eh, na daal di d'accord ci wax bi ndax boobu bëgg na Asiya mu ne ko kon sa samihi wa rabbihi fi daar mu ne ko kon wutal ko tur te nga yar ko ci kër gi bàyyi ko fi mu ne ko nag tuddee naa ko Muusa ñu ne ko lu tax nga tuddee ko Muusa mu ne ndax ñu ngi ko fore ci diggante garab ak ñax waaw muu ci arab mooy garab saa mooy ndox nga ne Muusa ndox ak garab ci diggante ndox ak ci diggante garab ak ñax leen ko euh, fore mu mel ni kon tudd nañu yonent yàlla Muusa yar nañ ko ci kër Firawun kon léegi affaire am a ngi commencé yu baax waaye coow laa ngi ci liir la war naa am ku ko nàmpal te Asiya juru ko te itam mënul nàmpal fokk mu wuti ñu ko war a mën a nàmpal commencé nag woolu ay nàmpalkat ci pale bi ku ne ñëw jox na sa ween muusa waaye Moussa nanguwul mujj gi mu ne daal nanu dem ca marché ba su ko defee ñu yëg la nag nàmpalkat yépp nanu ñëw ndax sama sama doom ji daal bëgg naa ku ko nàmpal bu ñu ñëwee ca marché ba nag ndeke Mariam moom toppoon na maanaam euh, sëru muusa bi toppoon na cees gi ba gis ne eh, jaam yi doon sangu ci dex gi fornen ko ba yóbbul ko Asiya waaye mu comme moom ci pale bi lay liggéeyee mu toog rek jàpp njàmburam mel ni bokk ak xale bi dara waaye bi ñu demee bay wut nag wàllu nàmpal ba ñu ba mu gis ne muusa bañ na nàmpalkat yépp ca la daw nag dem ca yaay ja ne ko yaay e ñëwal gaaw ndax Moussa eh, waa kër Firawna yi for nanu ko léegi nag kenn rayu ko et Asiya jàppee na ko doom léegi nag lu ñu bëgg mooy ku ko nàmpal moom nag bañ na nàmpalkat yépp kon nanu dem nga jox ko sa ween ba xam et waaye nag lu jiitu muy dem proposé na waa kër Firaw na ne leen moom gis na koo xamante ni mën na koo nàmpal ba mu ko waxee itam sonal nañ ko ci waaw ndax kooku ñuy wax haamaan moo ko ci sonal waaw loolu la alquran wax ni wa xaramna alayhi almaradia min qabl fa qaalat hal adullukum ala ahli beytin yakfuluunahu lakum wa hum lahu naasixuun alquran nee man yàlla ñun yàlla fexe neen ba araamal soowu nàmpalkat yi ci yont yàlla Muusaa nanguwu ci benn foofu nag la Maryam taxawee ne leen yéen mbokk yi xanaa duma leen tegtal kër goo xamante ni waa kër goo xamante ni bu ñu ñëwee nàmpal xale bi xale bi dana nangu foofu nag la ko xamante ne ko yow mii dafa mel ni xam nga ci mbiru xale bi dara yow mii ku toppatoo say mbir am na loo bokk xale bi mu mel ni xamaan am na gis-gis bu ko yàlla di jox toujours ak li muy kàccoor kàccoor mu ni ko déedéet eh, man dama xam ñoo ñu seen ñewante rek ci xale ak ni ñu bëggee xale ak ni ñu mën a toppatoo xale te itam xale xamul lu dul ko ko yërëm ak ko bëgg te itam xam naa seen cofeel ci na ak waa këram eh, looloo tax rek ma yaakaar ne e comme jox ngeen nàmpalkat yëpp ñu ñu bañ ma yaakaar ne ñoom e ko war a mën a nàmpal lool rek la ñu ne ko ah, ko kon bu dee loolu la kon baax na demal nga indi ko ci la dem nag indi yaay ci bi mu ñëwee rek daldi koy jox ween wi rek Moussa daal di nangu mu nampal ko bu mu suur Asiye kontaan ndax Asiye jaaxle woon na ndax cofeelam ci Moussa ëppoon na te bëgguloon mukk Moussa dee te itam Moussa nanguwul benn nampalkat ba loolu defoon ci moom ak tiis mu yaakaar ne xale bi dana dee ci loxoom. moo tax bi nga xamante ni nag yàlla dogal na eh, yaay ji ñëw ba jox ko wenn wi mu nangu Asiya gémmewu ko waaw Asiya nag commencé laaj ko ne ko daal man dama bëgg nga toog fii ci palais bi dama ko nàmpalal dama ko nàmpalal bu ko defee nag ma lay fay nga wax ma eh, ñaata laa lay fay par weer sa lépp di dox mu ne ko waaw man de bëggoon naa ko waaye wax dëgg yàlla dama di njaboot dama di njaboot te man rek maa nekk ci kër ga te bu ma ñëwee fii ci pale bi toog fii itam sama liggéeyu kër dana tardé ma bëggoon daal su fekkente ni du la gêné nga bàyyi ma rek ma yóbbu xale bi kër ga su ma demee di ko nàmpal foofu su demee ba dëgër ma indil la ko Asiye ne ko ah waaw waaye nga toog ci pale bi rek ndax boobu Asiye dafa bëgg muusa dafa bëgg xale bi waaye comme yeneen comme yaayu Moussa moom gëm na la yàlla waxoon ak moom te moo di ne danaa la delloo xale bi moom mu dëgër rek waaw dëgër ci rek ne daal moom li mu bëgg daal mooy dellu ca kër ga e nàmpal foofu xale bi ba mu dëgër mu indil ko ko mu ne ko waaw d'accord kon insister nga mën naa la bàyyi yóbbu ko kër ga kon soo ko nàmpalee ba mu dëgër nag nga delloo sil ma ko mu ne ko d'accord et ci la ko delloo nag mu boole ko ay soldats ñoo ko escorté yóbbu ko ba ca kër ga e ñu daldi koy wutal lépp loo xamante ni rekk soxla na ko pour lu jëm ci wàllu ndimbalu xale bi yépp loolu nag muy dëggal li yàlla waxoon nag moom ne ko danaa la delloo xale bi danaa la delloo xale bi te itam danaa ko def mu bokk ci yonent yi yàlla dogal itam fa nekk yor doomam toog ak xel mu dal et lu mu bëgg yónnee ko ca pale ba ñu fajal ko ko garaatam gën a yokk lépp mu di dox te xale bi kat mooy xale bi nga xamante ni moo war a folli ji nga xool ne tey su fekkonte ne xale bi et yàlla mënul boppam kon dana ko jaarale feneen waaye noon bi nga xamante ni moom mooy noonam piir moom la ko booleel te mënulu ko dara kon nga xam ne yàlla ku mu àndal rekk et waruloo tiit waruloo rabbi rabbi e moo tax itam yaayu Moussa xam ne moom la yàlla àndal booba la xelam dal ba ni mu génnee àdduna waaye yontu yàlla Moussa bi mu demee ba dëgër nga xamante ni yaayam nàmpal na ko e, ba nga xamante ni léegi fer na mu war a dellu si nag e, ci kër Firawna yàlla dogal Asiya joxoon teeg rendez yaay ji ne ko nag indil ma ko jour sàngam mu daal di nag yëgle ci dëkk bi yëpp ne leen sama doom ji fer na nag ku am kado nag mu ko indil waaw keroog bi ko yaay ji di indil ci buntu këram la commencé di recevoir ay kado ba ci buntu pale ba ba mu ñëwee Asiya daal di yëkkati oor yu am valeur itam jox ko xale bi ne ko loolu mooy sa kado ba pare nag digal yaayu Moussa ne ko demal nga yóbbul ko na moom itam mu jox ko kado mu ñëwee mu ngi fekk na mu ngi toog ci chaise am gàdd yëpp wër ko mu jël yonent yàlla Moussa rek daal ko koy jox mu téye ko waaw daldi jël kado jox ko waaye ni mu ko téye nii mel ni ku koy nax foofu nag fekk na mu ngi nekk ci àdduna gu yaatu nekk ci péex nekk ci itam nguur goo xamante ni benn nguur masul mel ni moom mu daal di fëgg dënnam moom yonent moom firawna daal di wax ne ana rabbukumul aala man may seen borom bi gën a kawe ndeke bi muy wax wax bi mu ngi uuf yonent yàlla Muusa wax boobu diis ci yonent yàlla Muusa maanaam ana rabbukumul aala mooy man may seen borom bi gën a mag kon diir na mbagg yàlla ne moom du yàlla ju ndaw yàlla yépp moo leen teg tànk ndeke firawna dafa am benn sikkim bu gudd yonent yàlla Moussa mu ngi toog firawna uuf ko mu yóotu sikkimu firawna nee neen foofu jox neen ko fa dooley fukki waxambaane yonent yàlla Moussa li muy nekk nekk xale toll ci fer bi mu xëccee sikkimu firawna bi xëcc bi dafa metti ba firawna bu doon julli la ñu ne njàppam toj na ndax xëcc bu metti Firawna daal di mer ndax Moussa daf ko rusloo ci biir njabootam mu ne nag léegi nu mu def dana rey ci yàlla Moussa ndax kii mooy noonam bi mu doon wut kii daal mooy sama noon bi kii daal nañ ko rey liir bi du fi màgg kii dañ koy rey Asiya ne ko déedéet kii xale la li mu def teyu ko eh, soo weddee nag li ma la wax moo di nu mu jël bàyyi ma ma def benn affaire Asiya daal di dem jël benn weñ bu tàng tàngal ko ba mu xonq daal di jël benn benn fruit teg ko ci wetu weñ gi ne ko nag bu fekkente ne jël na fruit bi ñoo xam ne e, du xale mag la li mu def mag a ko def su fekkente ne nag jël na weñ gu tàng gi ñoo xam ne kon yëf yëfi xale la ndax xale xàmmeewul lu baax ak lu bon yonent yàlla Moussa di raam di raam di raam di raam bi mu agsee ci ci ci weñ gi rek daal di ciy teg làmmiñ wi ba làmmiñ wi lakk wax ne ne sax pom bi la wuti woon rek fa Jibril fël pom bi fël loxoom mu daal di wuti nag weñ gi daal di ciy teg làmmiñam et loolu taxoon na làmmiñam yàqu ba mu xawoon na dotom tuuti waaye mbokki jullit yi ñu ngi leen di ñaan ci àjjuma bii di ñëw incha allah. kii jaajëfal nañ leen bu baax baax loolu mooy euh, première partie bi nga xam ni moom la ñu amagum ci ki nga xam ne mooy euh, Cheikh Ahmed Tidiane Ndao euh, gis ngeen nag fi nga xam ne fa la ñu déparé ci yonent yàlla Moussa fa mu déparé ci waajuram ak fa mu yegg ak fi nga xam ne tey fa la yegg si ci Firawna ba ci làmmeñ wi nga xam ni yonent yàlla Moussa lan moo waraloon mu dotom loolu lépp dina ñëw ci biir histoire bi ci àggale gi incha allah daañu ñëwaat ci ci biir semaine bi lay doon dinañ ko toppal. toppal leen ko ba Moussa xar géej gi dina leen ko toppal ba Moussa labal na dinañ leen ko toppal ba Moussa Samiriyu ak Moussa yooyu yëpp danañ ci ñëw incha allah muy histoire yoo xam ni euh, dinañ xool nañ ko intégré ci biir GCB di indi ay siratu nabawiya parce que dafa am ñoo xam ñoom moom la ñuy teel euh, ñu ngi nuyu tamit euh, Serigne kii. Bas koom sëriñ Bas xel Xelkom Mbàkke moom it ku yëngu ci wàllu siira la nee naa leen man moom ci wàllu siira ci euh, réew mi ñaar ñooñu daanaka ni ñoo ma ci gën a ñoo ma ci gën a doy muy Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw ak euh, sëriñ Bas Xelkom su ma ko waxee nag sama xel dem ci euh, Bamba Dieng Bamba fépp moom kuy faral di topp kilifa googu la muy sëriñ Bas Xelkom jërë ngeen jëf mbokk yi kon lii mooy li ñu indi ci première partie bi ne mooy yonent yàlla Moussa daañu ñëwaat ci àggale gërëm leen bu baax di leen wax ngeen di gën di woy di abonné asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu